waaw comme ni ñu daan waajal combat rek parce que ñun am nañu yaakaar si suñu mbër wax dëgg yàlla xale xale bu am cër la ci ay kilifaam waaw am na jom nangu naa liggéey bëgg na li muy def ñun daal am ñu ñaanal yàlla defal xéwal defal ko sutura may ko victoire bu sedd guy. waaw loolu moom kii amuñ ci ñaari xel ñun daal am nañu yaakaar suñu mbër te wóolu nañ ko la lam ñu doon defal démb liñ ko doon sant démb bu ñu koy defal bu ñu ko defalee tey jii kii ñu ngi si am yaakaar bu baax baax ñun di ñaan yàlla daal yàlla doolu ñu sutural waaw loolu daal mooy sunu kii sunu sunu mébét waaw ndax comme xale la te dugg na ci làmb bunte bi tegu daal yàlla na ko yàlla jubal ci jubal ci jullit bu bëgg du baax rek doon sa rasul non xam nga loolu waxul làmbale rek euh, xam nga euh, làmb bu fekkee da nga cee jëm yàgg sa adversaire am am na nooy waxee noo xam ne mu mu lay xaar foofu mën naa faa bañ a gis waaw ñun nag euh, su suñu xale daal lañ ko wax dina ko def bu soobee yàlla waaw mais nag bu wax jotee jaay combat moom mënul ñàkk si si waxtaanu lamb waaw loolu daal euh, foofu la taxawee daal waaw ñun daal la mu bëgg la bëgg mu bëri ko te moom xam na li muy bëri sax ndax ñun bëgg nañu li muy bëri waaye moom si boppam xam na lu muy bëri ndax la du gan ci lamb waaw comme kuy dem ba adressé ngoor di fa jël ay combat si benn bés nga bëri lu mat fukki combat juróom kon combat benn bés warul mën a jaaxal ñun daal ñu ngi am yaakaar yàlla yàlla yàlla euh, euh, euh, bégal ñu si li yaakaar.